Boy Niang Modou Lo choc de titan mooy jeexal yëglekaay yi daanaka ubbite gi dana nekk marka Sadio Mané ñancoo Nicolas Jackson Jackson tey yëglekaay yi gars yi riis na lool ñu dem fële nga xam ni mooy ndakaaru nag daal di dem ci ponkal mi ki nga xam ni mooy Malick Sarr sponsor bu mag bi mu dikk ak yéen ci yu bees yoo xam ne andi wa gars yi def leen seen i commande numéro bu baax baa nga 76 907 71 80 numéro bi gars yi njëkkante gars yi Malick Sarr a nga ca en gros lay jaay ak détail yombule ko lool car macha allah day kaf ak yow di waxtaan ak yow di la jox ci eh, kafe gi ngay naan loolee am solo bu baax a baax gone Kawlax gi gars yi gaaw leen dàbbar ñi foofee am na solo Mundo Deportivo La Corogne président bi nga xam ne mooy président foot espagnol lank kandaare mbas na gars yi nanguwut a démissionné de gars yi donte coow li nag bari na ci moom lool car masàllaa ndax fi mu toll ni daanaka la mu xamle mooy jafe-jafe yi nga xam ne judd na ci moom li ko gars yi xalaat ak lam ca yaakaare woon jàppoon na ni kuy foon doomam loole tamit ci la Marca yëglikaay ñëw waaye Marca nag fàttewul Vinicius mu blessé fàttewul tamit Bellingham mi nga xam ne daanaka paanum ndox la bu Real Madrid doon mu yann ko jëlee ko fële nga xam ne mooy teenu penc ma indi ko ba ci biir kër gi wàcce ko ndànk te dara pàllaxul loolee la yëglikaay bi andi record yëglikaay Jackson Jackson mi jàkki li nga xam ne mooy Chelsea bëgg ko yóbbu fa sore sori loolee nag dañ ko ci ñaanal tawféex ci record yëglikaay numéro 10 ñancoo national wane na boppam démb ca Arabie Saoudite coppati na ca bit boo xam ne gars jalax ba mu ko jalax daanaka ndànk la ko def ca kaaya mu ni cabax yëglikaay bi fàttewu ko benn yoon remercier ko gonek Sénégal ak génération foot gars ngeen defum ndiiraan amul fay dem seetaan équipe bi nga xam ne mooy bu Sénégal ndax ndam la ci yow ndam la ci man mii ko wax bu ko defee ñu mën a tëj ci Guinée ba mu nooy dem ci Ligue des champions boobee nga xam ne Sénégal gëj na caa am taxawaay te it ñu ko yaakaar ci gone Denis Biram Ndaw yi nga xam ne Madi Touré mooy seen football ci Sénégal lépp loo xam ne football Sénégal mi ngi koy meññ nii daanaka bokkoon na ci ñi ko jëmbat suuxat ko ba mu màgg ba mën a sotti tey yi stade yëglekaay lu sottiwul dara ci diggante ki nga xam ni maanaam moo nekk fële ca euh, équipe bi la di wala boog ci Koulibaly di international sénégalais boobaak léegi daanaka mi ngi ci blessé waaye mi ngi bëgg a ñëw ñaan ci international stade ko ndax ay stade mënu ko tudd te boolewoo euh, sama waa ji seen waa ji beneen information boo xam ne daanaka mi ngi ci tribune sport bu Bougane Gueye Dany dafi ni ñukk Sénégal dem fële ca a euh, Madrid dem fekk fa Real Madrid gi nga xam ni jàpp na ne équipe boobee daanaka fi mu toll nii démb def nañ ay tojaange grâce à Bellingham loole la yëglekaay bi def ci xëttam wu njëkk nant mi nga xam ne ñàkkul ñànkiwul loolee mi ngi ci yëglekaay bi waaye nag la soc bi nga xam ne moo nar a am ci vingt 2024 kii di Moodu Xarañ Lo xarañ loo ak ki nga xam ne daanaka mooy booy ñaa soog boobu gaa ngi koy bàyyi xel di ko wàcc loolee mi ngi ci yëglekaay bi nga xam ni xëtam mu njëkk lool la fa baraj barajee gaa yi baraj baraj lee leen lii di information yi ma